ci ko xamni mu ngi doog ñew euh prévoir ko won ci mu wax donc mais l'incident est clos mais euh Cheikh Omar Diagne euh, ak Abdou Karim Gueye mi nga xamni mo waron tok fi sama place wax mais tay mom lay waxal parce que mom nanguwu la wax tay donc mais rafetlu d'abord sen libération euh a ñaawlu anam bi téyé nit ñi kasso fi Sénégal parce que mom ci jappam bi mujj comme nim ko waxé won ci une conférence de presse conjointe bu nous defoon la te propos yi mu tenir man ak dambo ñoo ko njëkk tenir moom ñu seppi ko dem téye ko tout simplement parce que dafa samp benn parti boo xam ni dafa am un soubassement et un fondement religieux nous am ci luñ parce que benn système maçonnique nous ñuy donc nous jàpp ko injustement au prétexte au prétexte que dafa il wax loo xam dafa remettre en cause euh, légitimité euh, euh, président Macky Sall dafa remettre en cause les institutions et le fonctionnement kon ñun ci si bañ ko arrêté moi j'ai fait une intervention revendiquer exactement les propos qu'il a tenus sans être interpellé donc ça veut dire que nous moom moo moo leen intéressé woon xawma lu ci sax Abdou Karim Gueye donc ñoom expliqué que depuis le 5 décembre nous sommes en détention arbitraire parce que yoon daf leen sur la base de l'article 187 du code de procédure pénale Nous avons ne un mois la cour d'appel statutaire, c'est une demande de libération provisoire kon avons fait un jour supplémentaire ou un mois supplémentaire nous ñu en prison pour dire quoi que sommes dans un état de droit nous sommes dans un état de dictature donc dañuy avons fait ak yelleefu nit ñi dañuy fowé liberté doomu adamé té lolu je crois que ñëpp wara taxawando bañ ko té ñu ngi jëm ci jalgati euh, constitution ak droit parce que ñëpp gis nañu contexte bi ñuy vivre pour aller vite damay teunk parce que ñu ngi jëm ñu ngi jëmoon ci ay élections yo xamné euh ñu ko doon sentu bala fin wu mandat wu président Macky Sall mais ñëpp gis nañu ni mom mu ngi manœuvrer pour ñu jall le 2 avril mm-hmm. kon tay ji ñun li ñu doon reprocher Cheikh Omar Diagne le mel noonu il faut mu parce que Sénégal au-delà du 2 avril ñu am président bu tudd Macky Sall que tout le monde se le tienne pour dit et que tout le monde se tienne prêt à défendre la constitution et l'état de droit au Sénégal parce que mënuñu sur ay manipulation de bousculer suñu calendrier euh, républicain de confisquer le vote des citoyens de confisquer le pouvoir en voulant se maintenir au-delà du 2 avril contre toute procédure contre toute loi parce que constitution les règle prévoit prévoir en cas de vacances du pouvoir décès démission du président de la République le conseil constitutionnel les constaté la vacance du pouvoir et le cas échéant président de l'Assemblée nationale m'a dit pour trois mois organiser une élection. donc nous, loolu kese ce que nous nous, confiscation du pouvoir lay tout te bu y du ay discours moo koy moo mais une pression populaire active sur le terrain moo est relever donc lors bu faites ni ku ko d'un koy accusé euh, d'appel à l'insurrection appel à la résistance ou quoi que ce soit moi personnellement j'assume cette posture parce qu'il n'est pas question au-delà du 2 avril parce que injustice yi vivre mais mauvaise gouvernance bi nga xam ne moom la ñu bëgg a tàggalikool waral nit ñi 2021 ba légui injustice avons ñuy teg ba wara élection février ñu acc élection ci benn décret légui ñu ngi ñu fi au-delà du 2 avril loolu nak je crois que lu mu jur ci difficulté le premier responsable c'est Macky Sall donc euh, euh force de l'ordre yek force de défense yi qu'elles se le pour dit parce que Sénégal duñu nangu boumu diam, duñu ñu nangu buumu nooteel kon baña a guddal moo ma teunk wax ji parce que jotaay bi yag na mais mënuma ma bañ rebondir ci benn point sur euh, vingt six hectares yi nga doon wax bo xamni mom moom jox Franck Timis mais Franck Timis dafa caché Aliou Sall et Ablaye Timbo parce que xawma ndax yéen a ngi fàttaliku Agri Trans nous avons ko des reportages ci le reportage BBC Il y avait des virements de 250 000 millions de dollars Nous avons fait Agritrans et à l'époque le conseil en communication de la présidence la s'en Thiam j'oublie son nom euh, justifiait que c'était un problème d'agriculture donc Agritrans une société la a xam ne créé mais après Aliou Sall moo ko jënd ñooñu hectares précédemment nous avons fait une société italienne bu tudd Sen Oil. lañ réaffecté les problème qui muy posé problème autosuffisance en eau les posé parce que le manque de lac de Guiers remettre en cause l'autosuffisance euh, en eau Sénégal Donc, kon qui a attirer l'attention au delà de deal foncier et euh, que passe droit yi nga xam ni ce leen defal mais dama koy teunk rek ndax circonstance bi xamna ni occasion du manquer waat pour ñu revenir euh, ci euh, actualité bi proprement dit. merci beaucoup. que jazakumullahu xayran. bon Alaaji Clédor. alors ah trois questions hein. du ko quoi. parler de la situation de juin. bon ah oui.